ziar bu baax a baax ñu daal di rek euh, dugg ci li nga xamante ne euh, moo di waxtaan bi actualité bi wax naa leen ko li ca gën a faar euh, bokk na ci coowal li nga xamante ne moo di assemblée ginnaaw ba njiitu réew muy jëlee ndogal ne dafa bëgg a li nga xamante ne moo di haut conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social et environnemental ba sax daanaka moo juru coow fële ca assemblée nationale waral ñi nga xamante ne ñoo féetee ci kujje gi ne woon dugal motion de censure waaye mu mel ni sax benn mbir moo xamante ne moo daal di contrer boobu les motion de censure ndax session extra extraordinaire la njiitu réew mi woote woon tey jii fa la nga xamante ne moo di ca assemblée nationale ordre du jour ya bëri woon na nag waaye euh, li ca gën a am solo di li nga xamante ne moo di déclaration de politique générale bu Elimane Diorine Ousmane Sonko war a amal te boobu la déclaration de politique générale boobu sax la ñuy daal di faram-fàccee ndaxte. daanaka waa assemblée nationale daal dina ñuy woo ki nga xamante ne mu di Ousmane Sonko ngir mu ñëw la 11 def boobu boobule euh, DPG euh, ci veyu sax dissolution assemblée nationale mën nañ ne euh, Moustapha ci la ñu daal di woo Ousmane Sonko waaye est-ce que réellement déclaration de politique générale dina am ndax règlement intérieur ba nga xamante ne moo tënk assemblée nationale mu mel ni ñoom respecté wuñu ko. waaw soxna Ami da nga xam nga li xew ci réew mi. Mhm. depuis mën naa ne démb la wala mhm. avant mooy bis bi nga xamante ne voté nañu. Euh, daal di rejeté li nga xamante ne moo di projet de loi bi président Bassirou jomaay fay joxoon ngir ñu tasal ko. li nga xamante ne moom mooy euh, au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social et environnemental. léegi bi ñu ko defee ba noppi dañu jàpp ne waa Benno Bokk Yaakaar doyalaguñu maanaam am nañ benn ndam. ñu ne sa ëllëg sa dañuy dugal li ñuy wax motion de censure pour mën a censurer bi nga xam ne moo ko jiite Abdou Mbow annoncé ak euh, vraiment beaucoup d'enthousiasme wax beaucoup vraiment rigueur ne dañ nañu indi motion de censure dinañ daaneel gouvernement bi waaw arñi bu bu bu bu bu am solo ne dañuy daaneel gouvernement bi dinañ indi motion beek nangam ak nangam réglement intérieur bi moo ñu ko may mhm. après ñëpp nangu mu daal di xëy ne dugal na ko gars yi daal di koy partagé ñu ne groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar dugal na ko ñu xëy Doudou Wade ne juróomi fan rek waru koo mën a weesu normalement rek euh, lii di euh, motion de censure war nañ koo mën a dóor juróomi fan gouvernement bi daanu balaa ñu koo dissoudre mhm. fa ñu toogee sa ngoon nga le président Bassirou Diomaye fay daal di euh, sàkku ñu ubbi troisième session extraordinaire mhm. daal di yóbbante loi yi nga xamante ne war nañ ko faa càmbar ci biir loi yooyu ñu boole ci déclaration de politique générale mhm. léegi ba mu ko sàkkoo ñu ubbi ko ñu dem article 84 bu constitution bi mu ne leen session extraordinaire bu ñu ko ubbee yéen bu ngeen amee bëgg-bëgg. Mhm. bu dee lu jëm ci sàkkute bëgguñu bi session extraordinaire yéen bu ngeen bëggee président président de la république bëgg président de la république mooy jiitu yéen ngeen doog mooy priorité voilà mooy priorité. Mhm. loolu constitution la ñu tënk ko réglement la euh, bon constitution la autant pour moi. Mhm. ñëpp daal di si tënku mu doon loo xamante ne tey jii amul nit lu mu ciy wax ñu daal di ne patt noppi. jàpp seen jàmbur. tey ñu xëy dem ñoom ñëpp ñu daje fa ñu daal di ubbi li ñuy wax session extraordinaire mm-hmm. bi ñu ko ubbee ba noppi après président commission yi daal di dajaloo pour toog définir euh, euh, règle euh, am emploi du temps wala autant pour moi or waa nit ñi ban programme bi nga xamante ne mm-hmm. moom la ñuy moom la ñuy définir moom la ñuy liggéey par rapport ak loi yi nga xamante ne mm-hmm. indi na ko ñu war koo càmbar léegi loolu am ba noppi ñu daje fa ñu ne léegi ñun bi ñuy bëgg a jiital bi ñuy bëgg jiital mooy déclaration de politique générale bi nga xamante ne mooy bu président Ousmane Sonko bi bon bu premier ministre Ousmane Sonko. Mhm. parce que dañu jàpp ne xam naa peut-être boobu moo leen gën a intéressé. Mhm. ñu ne léegi ñun jàpp nañ ne léegi jàpp nañ ne euh, premier ministre mën na ñëw le onze su ko defee mu def déclaration de politique générale bi. ñu leen ah waaye yéen li ngeen def fa ngeen ko teg ñu ne waaw parce que président jàppul date ñenn ci député dañ jàpp ne moo waroon jàpp date mooy leen déet. li nga def tegoo leen ko fenn lu ko waral. Mhm. mooy bu ñu delloo ci réglement intérieur bu assemblée nationale bii nga xamante ne suñu technicien bi tey projeté na ko lu mu wax. Mhm. la déclaration de politique générale doit intervenir au plus tard trois mois après l'entrée en fonction du gouvernement. Mhm. maanaam ñetti weer gën koo gàtt euh, ñetti weer gën koo ndaw. war nañ def li ñuy def déclaration de politique générale. lii ñu souligner en vert ni mu ne l'assemblée nationale l'assemblée nationale doit être. informé huit jours au moins avant la date retenue ok maanaam assemblée nationale war nañ koo yëgal juróom-ñetti fan. Mhm. laataa date bi nga xam te moom lañ jàpp. lañ jàpp maanaam Elimane Diouri nii war naa prévenir assemblée nationale leen dinaa ñëw def déclaration de politique générale mais loolu huit jours avant la war a. ah huit jours avant date bi ñu retenir. exactement ñoom ñu ne dañuy jàpp date non seulement. Mhm. non seulement date bi ñoom wax nañ ko président de la République moo ko war moo ko moo ko war a jàpp ko jébbalee. ne leen examiner yoon ko càmbar leen ko bu ngeen ko càmbaree ba dab bi ngeen di bi ngeen ne moom ngeen bëgg mu ñëw ko dafa war a méngoo ak règlement intérieur bi nga xamante ne moo di règlement intérieur bu assemblée nationale mu am huit jours donc huit jours yooyu tey ji suñ ko jàppee on a les cinq cinq plus huit égale treize treize war a nekk cinq plus huit égale treize donc normalement le treize bu doon lii mooy am le treize de Ousmane Sonko war a ñëw le treize la war a ñëw mhm. léegi xam naa ñu jàpp ne kon bu dee le treize day ñëw day doon loo xamante ne kon du mën ñëw parce que dañ koy dissoudre léegi ñu ne kon ñun léegi nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko delloo ginnaaw. ba le onze combat mooy Ousmane Sonko ñoo def déclaration. déclaration de politique générale balaa ñuy tas assemblée nationale. balaa mhm. mais dafa fekk ne ñoom ñi nga xamante ne ñoom lañ jox ngir ñu càmbar. Mhm. ay ay ay ay loi ak yu ni mel mais ñoom ñoo war a njëkk respecter loi yi. est-ce nationale bii la bëgg assemblée nationale boo xamante ne da am règlement intérieur dañ ne règlement ngeen dem ba reconnaître ne règlement intérieur dañ koy falsifié. ngeen dem defaraat ko ñu waa toog. Mhm. léegi assemblée nationale boobu mooy toog article 97 ne le huit jours avant. Mhm. muy ñëw war na ko yëgal assemblée nationale yéen ngeen toog jàpp ko si ñaata six xaw ma sept. six six jours ngeen ko jàppee. Mhm. léegi loolu lan lay nduru boobu assemblée nationale est-ce que doon na loo xamante ne tey jii mën na mën na mën nañ mën nañ ko wekk wala ñu jox ko cër su fekkente ne ay humeur ay humeur nit lay lay évoluer maanaam nit nit bëgg quoi texte yi ngeen ne sama nekku si xam nga façon de faire bi pour man taqalikoon nañu moom ak Macky Sall yii yii waa kër Macky Sall lii ñu baaxoo li mu fi nekk yëpp ni la doon doxalee ah. ñoom li ñu bëgg bu fekkente ne tey jii dañuy ko doon defalee app bi ñu doon ñu dugal cour d' appel. Mm-hmm. ñoom ñu doon defee lu ñu bëgg ñoom lu ñu bëgg ñoom lu ñu bëgg xamuñu xamuñu loi xamuñu leneen ah. ñoom lu ñu bëgg rek ñoom dañuy dañ mm-hmm. koy patax pataxee def ko maintenant lii nga xamante ne mooy situation bi ñu nekk nii lenn kese moo fi am mooy ñoo xamante ne dañoo taxaw bëgg def li leen neex amul sens teguñu ko ci texte teguñu ko fenn léegi nag man dama jàpp ne tey ji boo moytul Ousmane Sonko dina leen tontu comme bañ ko fi doon wax ñëwal def si déclaration de politique générale mu tontu leen. Mhm. xam nga lu tax ma wax loolu. yow mënuñu la ñëwal def si déclaration de politique générale nga ne leen seen règlement baaxul defal leen seen règlement intérieur ba noppi ma ñëw. ñu profité réglé. waaw ngeen ngeen dem ba dafa seen règlement intérieur ba noppi. Mm-hmm. léegi yow ki nga xamante ne président de la moo ko inscrit ci mbir mais ko kay moo gën a bëgg mu ñëw. léegi mu def ko ci moom mu war a ñëw yéen ngeen war a sàmmonte ak seen règlement intérieur léegi léegi ngeen jël règlement intérieur bu assemblée nationale xotti ko teg ko na le ne léegi ñun dañuy def lu ne l'essentiel mooy que yow nga ñëw rek mais. lan lan moo leen wóor ne le douze ñu toll ni a mën a am programme dañu war a a am programme ba le loolu mooy yoon dañu war a am programme ba le vingt ils sont là pour cinq ans dañu war a am programme ba le vingt léegi au no de quoi ñu bëgg ko xëcc le lu ñu daw ci le treize moom le treize lu ñu daw ci le treize euh, bu fekkente ne son excellence moom la yéen kay informer leen te li war mooy da ngeen di pare ngeen informer le président de la république ngeen ne ko ñun kat bëgg nañ sa premier ministre ñëw le treize président daal di jóg convoqué def convocation yi. le treize la def convocation le treize Ousmane Sonko daal di ñëw. loolu mooy àddina mais li ñu li li li ñu def nii pour moi. le treize ku ñu koy fay. le treize ku ñu koy mais on ne jamais bu ñu ko wéyee le treize mën na am le treize Ousmane Sonko ñëw. <laughs> yow day député la gën a xamante ne ñoom le treize xaas bi la ñuy la doon le treize. mooy doon ex député ngay dégg. dinañ <laughs> dem chômage technique dinañ bëri xanaa moom pour man c' la seule et raison que moo tax ñu bëgg a profité Ousmane Sonko ñoo def li nga xamante ne moo di déclaration politique générale. Mm-hmm. avant le douze wala avant le treize. te man yaakaar ne loolu Ousmane Sonko xalaatu koo def parce que ci motion de sens wala déclaration ma xamante ne def na ko démb wax na leen loolu ne leen leen seen motion de censure bi balaa muy ñëw. ñu tas assemblée te dalee leer na bu ñu tasee assemblée beneen assemblée li defee déclaration de politique générale mais mais du nekk assemblée bi Moustapha waaw xam nga bu ñu ko tasee beneen assemblée la ko def mais du nekk assemblée mais ñi ñi ñoo la gën a xam loolu xam nga combat bi kañ lañ ko perdre mhm. démb la waa bennoo perdre combat bi mooy bi président bi dugale euh, pour ñu convoquer benn session extraordinaire. Mm-hmm. nga xam ne léegi seen motion de censure waxatul luñ ci jëm. léegi xam nga nag booy lap ci du la romb da ngay langaamu comme motion de censure rëcc na léegi ñu seexalaat leen benn DPG rek ñu daaw langaamu si lépp lu ñu am rek DPG muñ ko gën a jamono ji déggatuma ko non parce que inscrire luñ ko ci fi ñu toll nii foog ñu épuiser yi pare session daf ko daf ko daf ko daf ci planche mm-hmm. na. non mm-hmm. nu président moo naan censuré leen ma <laughs> ami da ngay ruube quoi <laughs> censuré leen sama gouvernement. waroon naa jàppale waa motion de censure nag. waaw ñu ñu mën a ñu mën a kii am. proxmoolu ñooñu ñooñu ñooñu xam nga ñooñu dañ doon ruube léegi nag tey jii. Uh-huh. li li nga xamante ne moo moo moo am tey si si si si après midi bi nii pour man liñ ci liñ ci njëkk gisee mooy ñoo xamante ne dañu taxaw ci benn benn taxawaay boo xamante ne li ñu bëgg rek la ñu xam. Uh-huh. xamuñu lu yoon wax. xam nga démb li fi xew nii bu fekkul woon bu doon article quatre-vingt-quatre bi li mu leer nañ ñi génn ba léegi ñu ngi commencé de xataraay non non non motion de censure day jàll day def nii day def na le day def na le mm-hmm. mais actuellement xam nga li mbir mi leer nañ moo tax mënuñ ci dara bii tamit ku fi nekk di wax dañ naan dañuy dem xëccale règlement intérieur bi 80 article 97 bi rek daal lay tegal léegi bu article 97 bi tegoo sa nga xam léegi léegi fi wax ji féetee. Mm-hmm. ñu ne la président de la euh, premier ministre bi a ñëw. ñetti weer après bu ñu ko installé ba noppi. Mhm. bañ noppee foofu ñu ne waaye gis nga mi ngi nii l' assemblée nationale doit être informée huit jours au moins avant la date retenue. Mhm. maanaam premier ministre mooy yëgal assemblée nationale huit jours au moins avant la date retenue voilà ñoom ñu ne léegi non session extraordinaire la nekk euh, ñun ñooy jàpp date comme président jàpp date président moo doon ah, jàpp date. mais la ne comme session bi c'est extraordinaire ñoom a. léegi léegi ñu ñooy jàpp date parce que président moo leen ko jox ma ne léegi bu dee moom mooy jàpp date bu doon loolu la kay bu session extraordinaire ñu jël règlement intérieur bi sànni waaw parce que c'est règlement intérieur bi ngeen di sukkandiku di liggéey pour def session extraordinaire bi léegi pr te fii kan lañ wax sax dañ ne première dañ ne le président de la mooy war a informer huit jours avant dañ leen war a informer huit jours avant mhm. te boo gëstoo ñenn ñi lu ñu lay wax amu fi benn convocation boo xamante ne bu déclaration de politique générale boo xamante ne bureau de l'Assemblée nationale moo ko def mhm. y a des gens qui ont dit ñu ne amu fi benn euh, convocation boo xamante ne bu déclaration de politique générale boo xamante ne ji ñi ko def mooy bureau de l' nationale c' le président de la république comme ni mu ko defee ak session extraordinaire moo koy def mm-hmm. convoqué député parce que gouvernement mooy dem mm-hmm. léegi nag loolu balaa mu koy def balaa mu leen di convoqué daf leen koy yëgal huit jours avant kon ni bu leen président joxee kay mooy bëgg naa mu am ci biir session bi waaye léegi yéen duñ leen jox ngeen bëgg a jël lépp gàddu ko di profité nag di multiplier ay convocation naan convoqué nañ kii convoqué moo fi nekk ba tey wala lañ yaakaar dafa mel ni nag am ne ba tey mën a guñ digérer que ne Macky na fi Diomaye Diakhar Faye moo nekk président boobu dafa mel ni coup fatal bi am na ci ñoo xam ne yeewooguñ ci ba léegi dem sa non xam nga esprit revanchard boobu noonu maanaam defante gi démb maa ngi dégg ñeen naan waaw bennoo dugal na benn benn benn minute euh, benn but dernière ci ci temps additionnel mën na déet benn ko dañu leen dóor match bi tas ñu dem di bëgg siifi ji coupe bi ñoom foofu lañ toll fi ñu toll maanaam dañuy dem <laughs> <laughs> maanaam ñu gagné la xam nga match bi dafa demoon démb ba temps additionnel ñoom ñoo mëne woon quoi mooy bi ñu demee ñu rejeté affaire bi après di yuuxu dugal motion de censure gars yi dugal égaliser dolliwaat beneen nag. Mhm. match bi tas. ñoom ñu daw ne dañuy yóbbu coupe bi commencé perturber xam nga loolu mbirum yabaate la force de l'ordre yi ngeen di rek mu lijjanti leen. am na benn équipe bu nekkoon Kaolack. <laughs> Mhm. moom stade bi foofu la nekkoon nangaan ñoom mhm. noonu lañu daan def waa IFAN euh, stade bi ñoom seen koñ la nekk boo leen commencé waan di gagné dañuy fay mhm. lampe dañuy projecteurs yi la ñuy fay mhm. wala nga jékki-jékki rek ñu ne euh, commencé nañ di xeex ak gars yi ñoom noo def ñu ruube ñoom boo leera na da leen di gagné dañuy ruube match bi xam naa ñoo ñoo ñiy soréewuñ mu safa non ñii foofu foofu lañ toll na parce que si décision bi nga xam ne moom lañ jël nii ñëpp xam nañ ne li leen tax a jóg mooy euh, ñu xam nañ li leen tax a jóg mooy jéem a boole ñi nga xamante ne mooy nekk ci réew mi ak askan wi. Mm-hmm. après da ngay dégg kenn ku ne la maa ngi dégg euh, Mansour Faye mu ne ban moo nekk assemblée nationale ba Ousmane Sonko euh, ragal a dem di ko tooñ monsieur machine à café monsieur ventilateur monsieur. Euh, comme wax loolu Mansour Faye Mansour nee na ban moo nekk ci kii ba ba Ousmane Sonko daal di ragal assemblée nationale xam nga. Mm-hmm. il faut ñu distinguer.